maa ngi waxtaan bërki démb ak mbay saaxo mii di suñu doomu nijaay alaaji ibu saaxo suñu nijaay la waaye mbay saaxo day sang bu amul njëriñ parce du joxe sagaru njaam mu ñëw kër ga ñu toog di waxtaan maak moom ak sama frère maître Moustapha Ndiaye notaire nous waxtaan ba agsi société sénégalaise yi lu tax société tuuti nga dégg société ba daanu xam nga yonent bi lu mu gënoon a ragal ma ni ko mooy àq mu wax ko ni ko يننت بي دانيو كو لاج نيكو نيت كي امبوش نيت امل كو باي كان لن كو ورا فاي متى يوجر العامل مام لن كو لاج موني قبل ان يجف عرق الجبين waaw sama employé bi kañ laa koy fay yonent bi nee na fay ko avant que ne sèche les gouttelettes de sueur qui perlent sur son front fay ko mais nee na bu ngeen d'accord ci nga di ko ko tegal ci barab ba mu mat weer nee na boo ko ko dee jox bul ko ne jàppandil ci lii neena bu amee luy manqué na manqué yow patron bi ci sa salaire mais bu mu manqué ci saleeru u employé bi ma ni bari na société yu daanu te li ko daaneel mooy nit liggéey la ba fin du nga naan ko jàppandil ci lii dana baax ma ni kañ kañ lay baax kër gi ñoo ko bokk nangam nangam yont bi nee baaxul